vraiment Bougane yëkkatiwul benn kàddu bu tegginiwul saagawul xastewul deful dara luy niroog tooñ amul kenn ku mu tooñ tamit du capitaine du adjudant du du éméder chef du agent kon boobu daanu na tribunal ci boppam constaté na ni dañoo sosal Bougane pour gën koo téye prison loolu procureur moo ko ci yokk sax ndax bi ñu demee ci gendarme yi Bakel maa fa nekkoon ak maître Ba affaire outrage kenn tudd ko fa ba jour bi mu ñëwee fii Bougane procureur yokk ko ci outrage pour gën koo dugal waaye tey defe naa ne ah tey moom dëgg feeñ na ne outrage amul bi ci dopp mooy rébellion kenn ci ñoom neewul euh, Bougane dafa jéem a xeex wala rayante bi ñu koy jàpp rébellion boobu daanu na ndax moom moo yëkkati ay loxom ne leen comme convoi bi moo leen déranger pour mu dem Bakel ndax da ngeen président mu ngi Bakel kon dañuy bàyyi convoi bi fii ci tali bi ci mbedd mi man ak Anta Babacar Ngom ak Thierno Bokum ñun trois leaders yi sàmm sa kaddu ak sunu garde ko dinañ dox ko dem Bakel leen dox déedéet du ngeen Bakel ngeen dul dem ñu leen non mais ak tànk ko bàyyi ngay convoi bi dem convoi bi dafay toog. ñun ñu dox dem Bakel ñu leen ngeen dem Bakel kat mais bugaani leen ñoom ñëpp wax nañu ko de xalaat kon da ngeen may jàpp vous m'arrêtez je marche ou vous parce que man damay dox dem ñu ne ko jàpp foofu yaari nañ jàpp jàpp nañ la su ma sol am yaari nañ la jàpp jàpp nañ ci lan ci ne nga da ngay dox dem Bakel comme convoi bi dérangeré nit ñi da ngay dox ñu ne noonu léegi jàpp nañ la prison ba jëm. baaxul de baaxul de kenn amul droit dox ci dëkk boo xam ni. président ma fu nekk président bu deme seeti sëñ Muntaxa Touba kon kenn warul jógee Mbàkke dugg Touba kenn warul jógee Daaru Muxti dox dem Touba kenn warul jógee Daaru Salaam dox dugg Touba ndax Touba ca Daaru Minam xalif bi bu ngi président de la République waa waxi dof yooyu kañ la am ci réew mu bëgg a dof waaw Sénégal kañ la dof président mu nekkee ci dëkk ñetti dix heures di dox ñu ne non dox dugg ci dëkk boobu président mu ngi dëkk ba du ngeen dox dugg ci dëkk boobu Sénégalais yéen jommiwu leen tey question yi bu ñu koy posé gars yi dañoo rus ñoom ñu doon posé question yi soi an ay gendarme capitaine bi ak capitaine bi ordre la jot ngir mu arrêté. mu arrêté bugaat convoi bi mu arrêté convoi bi waaw mais la war a arrêté mais pas dox ñu ñuy dox. convoi bi moom arrêté nañ ko amul refus d'obtempérer arrêté nañ ko mooy troisième infraction bi convoi bi forcé wul baare ay barrage dafa droité ni leen comme sunu convoi bii jekk ba dee war a dem dimbale ji néew doole yi ñi ñàkk lépp ñi ndox bi dugg seen kër ba nangu seen kër yi comme ay ngeen ñu convoi bi dem xëy na convoi bi ni mu jekkee oto yi dañu rafetee ni ñu àndee jaagari jaagari dugg ci dëkk bi xëy na fekk fay oto yu ànd ak président Maguette Koubidas xëy na loolu moo leen metti ñu ne non non non non surtout que ñoom indi wuñ benn ndimbal fa ñuy jëm ñu ne déedéet du ngeen dugg ñu waa kon convoi na toog ñun ñu dox ci dox boobu nag ñu ne leen amu leen droit dox loolu infraction la a ah, prison bu gandi li ko waral mooy damay dox dem Bakel ñu ne ko doo dox soo dugg Bakel dang dul dox marche lu am mais li gën a garaaw mooy bugaan bi nga àndoon ak yeneen ñaari leader Thierno Bocoum ak Anta Babacar Ngom mais moom lañ ci seppi parce que moom dafa sonal gaañi nag moom mooy déranger pourtant Mbour Thierno Bocoum dana ma day dox Anta Babacar yi day dox ñuy avancé ñu leen niip loxo yi di ko da ngeen may jàpp parce que man damay dox dem de ñeeni dañuy dox de waaye ñu mennum buggaan lañ seppi ti buggaan gaare na convoi bi bàyyi ko ci mbedd mi nar dox ñu ne ko dox boobu nag la ñuy bañ parce que président bu nekkee Diourbel wala mu nekk Thiès wala mu nekk mbuur kenn du dox dugg mbuur kenn du dox dugg Thiès kenn du dox dugg tuuba wala Tivaouane boo président nekkee ci sëñ Babacar sëñ Mbaye Sy Mansour mais yéen ku jógee Saint-Louis da ngay taxaw amoo droit dox dugg dugg dugg dugg dugg Tivaouane ku jógee ku jógee ku jógee maître tey am nga yaakaar ne euh, procès bi tey fi ko bàyyi mu dem ñibbi ah bu fekkee ni kay amuñ intention téye ko prison ndax ah li fi nekk nii de wala ne bugaandu bandi jaayul drogue rayul nit mbëkkul benn gendarme saagawul benn gendarme bañ ne koo toogal dafa dafa oto yi wàcc ba wàcc liñ ko téye daal mooy damay dox dem Bakel ku la wax leneen deex lu ko neex damay dox bu ngeen ma arrêté ma bàyyi fi convoi bi dox ñu ne ko doo dox kon yaa ngi prison loolu nag tey buñ ko bàyyiwul nga xam ne am na leneen loolu ci làqu buñ bàyyiwul tey bugaan Sénégal yëpp maa ngi leen xam leen ni kon dafa am lu ci làqu xëy na li ko tere def campagne ba léegi li tax ñu téye ko def teguñu ko fenn kon mooy continuer kon xanaa loolu rus nañ ko def tribunal bi ma gis ñi ñu déglu a ah, gëwu ma ni dinañ def ëllëg lu ñu di xeebee. projet politique yi ñëpp a gis ni mu demee. avant avis maître lan moo nekkoon état d'esprit bi nga moom mu meloon devant la barre. Bougane ah, ko muy jongle <laughs> gisoo ko gisoo gisoo ko mu gisoo ko mu mel ni champion d'Afrique ah gisoo ko. mu mu muy toj affaire yi leer du dugal ay but du dugal ba gars yi jaaxle procureur jaaxle ñëpp jaaxle gars yi dañuy wax bu ñu xool di waa kii lu ñu ko indee fii sa waay tooñ nañ ko de kii lu ñu def fii place bandi yi ñu ne ne doog moom muy tëdd ci lali bandi yeeg néegu bandi yi kii bandi la kii di dimbale ñu sonn indi ay ay ndimbal lii la mérité damay dimbale waa Bakel yi sonn lii la mérité yéen waa Sénégal ku waxul dëgg wax la ca des yàlla nañu yàlla musal ci dul dëgg yàlla yàlla dimbale ba tribunal bi yàlla leeral xelam teg ko ci saatal mustaxima bu attee dëgg ndax loo atte fii dëgg yow attewaat ëllëg cey yàlla am na de ëllëg dañ ko sóoraale gars yi tooñ baaxul tooñ en français en français résumé en français monsieur maître Diouf ce qu'on peut vous dire c'est que vous avez constaté del déglu del xool